قال الشيخ عمر نون اي يدروري خليفه جوكي دون كو شير محمد المداني منتقى احمد ومن داو خادم الحضره العمريه سيرفيتور دي لا فامي عمريان خليفه بامكو يتيم كونكل اسم الشيخ الحاج عمر بوب فامي جوم ماكو دوم دون انا فو غاندن دوم كاتدن دوم نالتورن دوم جيتيرن دوم الله ceerno mouhamadoul madani ceerno ahmadoul bachir wi kanko ceerno mouhamadoul madani yàqul dara ci askan wi lépp lu xew ci biir kër Cheikh El Hadj Omar ina foti haaleede kanko ceerno mouhamadoul madani o haala heen kala ko nani lépp lu تبليغ كان الشيخ الحادي عمر واخدوكم واخنانكم تفق لي واخ دين دون لك بكي ولا دون لك دخل الاسلام بي بكل لون عاد بكل لون جار محمد المداري مي دنا كو دخ واخ كو تي دغنا depuis ba ma toogee ci xilaafa bi maa ko jox cër boobu na ko nit ñi xam ràññee ko bu loolu passé balaa ñuy jox kàddu gi Thierno Madani monsieur le président sehil ma guiɗoma mo ngannduɗa ceerno yiɗa ni min kaala kono noon kala mo golli ko moƴƴi yo jaari cheikh bar mahamadoul bachir o ɗanaki jamma o ɗanaki ñalawma kala ciiɗomo omo yaha wora namno o yiyata ko yono yeminor ceerno bachir kono fode ceerno mbaɗani o e mawniraɓe muɗum ɓeɗo ko kamɓe o ligganto o gollat ha feewa ha moƴƴa ha yooɗo o addo toto tenti hen ko tan ko heccenki dakar ziyara wakamo haade hen hay hunde waɗani daadi koye makko e délégation min jeeti ceerno madani mutalaama jam o wi ko jooni ɗernam darata nde ngari mi jiimaami mi jooɗnoymaami haaldema ganda noon golle paamɗa gollanteno ɗe golle ɗe gollaama feewi moƴƴi yooɗi kono ko sikkata ɗum ko ko maami ara mi jooɗnoyma golle ɗe fof nane jummuma ko an yahata ko an haalata ko an yamirta ko an ɗaccita ko an jaggata kadi jamɓay ñalawma kala kono fewna leydi ndi kono adda jaam so fuuto so nder leydi ndi so caggal leydi ndi so ngal leydi ndi amon haala sa yiɗi neɗɗo noon sa yiɗi nokku ma a yiɗi leydi ma koye iman billahi jeeya ɗum noon cheikh mar mahamadoul bachir omo yiɗi omo moƴƴini omo fewni omo darani ma kadi ko suudi omo feewi minen ɗum seediji cheikh mi yiɗa ɗum haale wono min mbawa wasde haalde ɗum السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ceerno goɗɗo o wi e inde khalifa o ceerno mouhamadoul bachir muntaka taha mo cheikh alhaji omarul foutiyu e taniraɗo rasulu bil haqqi sallllahu alayhi wa sallam kamɓe fo e noɓe ndiduri ya andu alhamdulillahi kamɓe fo eɓe jaɓɓama eɓe bismama eɓe teddini ah. Sénégal et virtuel mais Sénégal perpétuel. Thierno Mouhamadou Madani nee na la république na xam ni tey addina bi yëpp waa jaabur mi ak ñu ci réew mi ñoom ñëpp. dajale ni fii tey ci ëtt bii amul lu leen fi dajale lu dul ñëw gàttanu la gan gi tedd gi nga xam ne tey mooy gani si Thierno Mouhamadou Bachir. sëñ Ndar bi. bu ñu gisee gan gi teew tey muy son excellence monsieur Macky Sall président de la république danañ xam ne aaya boobu li ci yàlla wax président pratique ko. rasul sallallahu alayhi wa sallam eh, li sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax président ci boppam jaar na ci jëfe na ko. صاحب الحضرة سيدنا شيخ عمر وهالي مقبولية نانا صاحب الحضرة مولانا الشيخ الحاج عمر جمال الدين ست الأولياء شير محمد البشير لموح لمبك فإذا ذلك الله النبي سبحانه وتعالى قل امروا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يلا نادو فايد وخ جف لاي فاي كون موتاخ موني في آية القرآن في سورة التوبة من ومن يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون من جفل من جفل يا الله دين الجس يا الله كيسة رسول الله دين الجس رسول الله سيده جلدي دين الجس yàlla yëngalagul maa rasul seet wallagul maa julli naftam wallagul. yàlla dina dana ko seede jullit yi dana nu jëriñoo loolu moo di nekk. ne loolu mooy nite. gannaaw gëm yàlla lii wallaade ko ene nafa aduna jëf loo xam ne day jëriñ adina wallaade ko ene nafa bande am jëf loo xam ne day jëriñ say bokk loolu la sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle ku gën ci yéen yéen ñëpp li ma bind bu ngeen dalee yonent bi nee na ka gën ci yéen mooy ka gën a jëf lu baax jëme ko ci شيخ عمر نعملنا مهرتكم بالإعلام نعم. شيخ الحاج عمر فوتي رضي الله تعالى عنه لا جون من كنت جمالهم بور يبقى موت جنبا شيخ عمر بولي بور بيغا خمني مو غنا ما توبتو مسكين يالا يجلن سد بايلن خل بور بوبو مو دتي امير المؤمنين منتقى لامين جولبي شيخ عمر نعم امير المؤمنين منتقى من جولبه دوم شيخ الحاج عمر لا بلونا فوتام وبه فوت نيورو كو اندونا كو فوت ييب سي نيورو بون داري هان كادي حاجيني بير مي نيو بومو جاخاسو مو شيخ الحاج عمر كومينيكيتي جهاد بي نوا فوت يي اندونا ييب دادي ko Cheikh Oumar tottundoo ko ko annabi ko ko annabi yamirnoo ko na Cheikh Alhaji Omar li mu doon woote mooy li Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle Cheikh Oumar tottundoo ko eh, eh, mel ɗum ene waɗe walla wattaake Cheikh Alhaji Omar li mu wax li mu laaj foofu est ce que lii da koy def wala du ko def min Mountaga noon ɗi seettiima on mbaɗi on golli golle man Mountaga nag seede naa jëf ngeen jëf ci na ngeen ko war a jëf walla ni ma Allah on walla ni ma l'islam liggéeyal ngeen yàlla liggéeyal ngeen sayyiduna Muhammad liggéeyal ngeen lislaam. ñëpp ñu doon yee moom yaa fi mu war a. ñaanal naa leen jëggal naa leen yéemi naa leen. day ko golle kaala den. kon jëf la ñuy wax. alhamdulillahi rabbil alamin allah rokki Sénégal ɓiɓɓe ɓiɓɓe gollotoɓe. mais alhamdulillahi rabbil alamin yàlla. raflewul ci Sénégal may na Sénégal ay doom yu mën a jëf yu liggéey liggéey ju baax. li tës ki mais doom yooyu am na koo xam ni ñëpp xàmmee nañ ko ci ràññee nañ ko ci biir doomu boobu. Thierno Bachir doomu Thierno Bachir bii son excellence monsieur Macky Sall président de la République. so wayaano no wayni. ne. bu melul woon ni mu mel moom président. so waɗaano ko waɗi ko. bu jëful woon li mu jëf moom président. ma gàcce képp nit ma gàcce képp Thierno Bass. mais gàcce dana nu daal waaye gàcce dana daal Thierno Mouhamadou Bachir. Thierno yi daal neɗɗo mo liggoɗaa. ndax Thierno buggul ku dul jëf. si waroon ci ɗum koye Cheikh o. ndax loolu daf ko doon ci maanaam Mawlana Cheikh Al Hadj Oumar Fouti. yurmotaa ko miskine. Thierno buggul ku dul yërëm miskine yàlla yi. koye daal neɗɗo mo naftaa. buggul nit ko amadul njëriñ askan bi. Eh, o yiɗa neɗɗo mo tinata yimɓe ɓukkol ndikko hanni amoni yek yek jidomo adama ko mi yiɗi yimɓeɓe omo nafi yimɓeɓe mais fa tabarakallahu président yow nak yalla dimbali nela yegga nit ñi bëgg nga nit ñi faale nga leen alhamdulillahi rabbil alamin ne dañuy sant yalla bu baax a wawa limtude ko waɗi mais say réalisation yi nga def kenn mënu ko lim a wawa limtude la tu addu wala tahsa kenn ko ɗo sa tank fi tan ko fii ci luga ci attuma tagaɗa galgal makko e galle cheikh omar sa tank ko ci ker mawlana cheikh alhaji omar koye ɗon makko bi ɓe ko hen gal makko e eh, jokkere enɗam tona président président tan tank ci jokko makko fekk du ligga nek président de la republique donc sank ak unity sank ko population bi du mbubbu président de la république ken mo ko taw taw ko tan waɗi yow rek la ko yàlla nak mo tini yimɓe be day naa nee na am nga yëg-yëg ci doomu aadama yi. waɗi yimɓe ɓe moo tax sëriñ bi ene waɗi mo si biir xolam la la def omo yawiri kala gonɗo caggal makko e makki woni heɓɓere ɗum nee na ku nekk ci estafam nga nekk ndigalam nan ko soppal Macky Sall ndax Macky teral na ko bëgg na ko lu mu ni koo yittee nag. ne sëriñ bi lii rek la bëgg ci nit. lu Cheikh Umar yittee nag. loolu la Mawlana Cheikh El Hadj Omar bëgg ci nit. mu rasul sallallahu alayhi. loolu la Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg ci nit. ñoom Allah tegri leen. loolu la yàlla sàkkee bindee fi. ne te yoo yoo wuur. nit yàlla def la bind pour nga dund. yoo gëm in Allah. na nga gëm sa والله ناقا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون إلى آخر الآية يا الجفر سيدنا محمد لا سيد جلتي دوم عالمي عالمي Jabra Basir Ceerno Mahamadul Bachir ñaanuma ñu ngi lay ñaan indi bés mu maawul ci njabootu sa njaboot bu nekk fii di njabootu Cheikh El Hadj Omar e inde senkaaɓe noosi ak njabootu ahlu bayt rasul yi wuy si si hadara bi e inde julɓe wonɓe ak julli di teew fii yëpp e heƴiɓe ak ñi ñuy déglu te newlu fii wonda président na ñaanal son excellence président de la république yàlla ko yàlla may sa yàlla ren président nga ñaanal ko yàlla ko yàlla mott yàlla wàllu ma ko yaada ko li ngay dox guddi ak bëccëg yàlla la ci yàlla jàppale dimbale la ci mission ma ko haala timmina na mo ɗum mission bi la yàlla dénk nga jiite réew mi ba yàlla dimbale nga motal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ko waɗa leydi e pofɗi wadde nga jëf ci réew mi mboolem loo yéene ak loo bëgg yàlla mën na ko atte nga la ko yàlla ko yàlla def Cerno xam ngeen ni Cerno Abdou Bachir wax ju bare du moom waaye bu jëf ju bare moom la de président de la république tam xam ngeen ni bés bi am na ci ay engagement yu bare ñun ñii sax tabaarakallaahu ñu sant jaaliyaat lii commencé nañu bët yaa ngi jooy ndax sonn nañu président jaaraama Cerno Abdou Bachir a jaaraama